xool page par page benn par benn ci dossier bi yépp boo ci gisee lu ko mën a annulé donte Ousmane Sonko gisu ko chambre d'accusation da koy annulé mbir ma yam foofu waaye yooyu chance yépp bàyyi fa chambre d'accusation topp ngelaw li di far far di mooy ne Ousmane Sonko dafa nekkoon ci stratégie de communication loolu il faut ngeen xam ko yéen journaliste yi yàgg am xam nañ am ngeen expérience waaw du ngeen accuser kenn du ko kenn mais xam ngeen ni wax dëgg yàlla lii muy wax ni amul sens mais yeneen Sénégal yi nga xam ne de bonne foi la ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñi ngi may xas ni may kii mais seen njortu rek moo yaakaar ni lu Ousmane Sonko wax dëgg la ñu wóolu ko ci ni muy waxee ak bu wax ni muy aaloo ak ni muy pompé ñu wóolu ko fekk lii muy wax ni sos yi kese la kon war naa leen ñett nee naa leen benn mënul woon a deñ ñun nu ñu a def lool amul ma nga fa ñaara ma war nañ la yow mi dul xalaat laajal Ousmane Sonko ban intérêt laa ci am aw ma ci intérêt amul intérêt ñetteel bi ma war na la Ousmane Sonko ci boobu moo ma setal bala may jeexal ci boobu point dama bëggoon défier Ousmane Sonko parce que dama ci del si wat il faut mu génne ñaar benn mooy rapport d'enquête gendarmerie bi na ko génneew liir li commandant bee nga wax ci man bi ma capitaine Touré taxalee na ko liir loolu mooy yëfu gentleman na liir enquête bi parce que génne na ko frais wax na ko génne nit yi gis ko bu boobaa su ci amee leneen dinaa delsi ci anam bi may delsee du nekk anam bii bu boobaa naa wax ba ñu dégg ma dinaa génne ba ñu gis ma wax bu àgg nag kooku ko moom kon ci tënk daal mbir mi mooy loolu ñett yi ne da koy décharger ñaari war naa leen mi ngi ci PV bi changé wul nga fa ñetteel bi war naa leen lu koy dugal la su ca génnee sant yàlla la war a def juróom benn yi koy dugal ñeente yi ñu ngi fee ñaar yi am na chance correction yu génne waale ko am na chance correction yu génne waale ko moo tax par respect moom na ko liir maa ngi jëlaat aussi engagement ci yéen magistrat assermenté magistrat donc fonctionnaire assermenté maa ngi wax ne bu PV yi génnee rapport enquête bi bu bu saar Sarr génn bu Adji Sarr waxatuma bu gendarmerie boobu wax naa li si li la enquête rapport enquête bi nekk ci procès verbal bi nekk ci ma Maham Diallo bu génnee ngeen comparé bi ko bi Ousmane Sonko yoroon ni boobu mooy bu baax bi. maa ngi leen di wax yéen ñëpp di leen ko teel a seereel ni di ngeen gis ni bi Ousmane Sonko yor moo gën a dangereux ci moom bi nekk ci PV bi moo gën a sedd ci moom te am nañu ko gis wax nañ ko te yaakaar naa ni léegi xam na loolu parce que gis naa am na benn yoon bu mu jël loolu xëy na man tey laaj njëkk a wax ci procès ci affaire bi publiquement bu ma sañoon tey laa ci mujj a wax waaye comme moom ay julluli la takk rek di wax di wax di wax rek mën na am su ma ci waree dellusiwaat bu boobaa nag nañ xam ni lan moo ci des mooy photo yi gis nga bii je vous parle très sincèrement mook li mu wax ci Sidi Mouhamed Mbaye di daf koy seetal su ma sañoon duma ko wax parce que à chaque fois bu ma ko liiree damay sentir lan mooy problème nit ku nekk ci jafe-jafe lan mooy sa xol gis nga lii photo bi photo yi sincère bëgguma ko woon wax mais su ma ko waxul da ngeen naan ñaar yee dama cee nekk à l'aise bii nekkuma ci à mais photo yii moo gën a triste ci képp koo xam ne di nga am xolu yërmande lan la wax ci photo yi dafa am sax lu ma bëgg a leeral foofu daf ne rapport gendarmerie bi wax na ci foto yi c'est foofu xam naa loolu tam lu bees la ci yéen enquête u gendarmerie bi mu ñu wax ne ci photo yi c'est faux waxu ci dara xam nga fekkee dangay wax di wax di nga def ba mujj da ngay jaawale rapport gendarmerie bi naawul ñeppiwul capitaine li mu wax ci rapport gendarmerie bi yépp amul waxu photo parce que loolu moom naa xam sax capitaine Touré bi bi enquête bi jeexee la ci génn te nee nañu photo yi après enquête bi la kon ak nu ma cee accusé kon photo yi newul ci rapport gendarmerie Ousmane Sonko xëy na am na fu mu jëlee wax ko waaye photo yi kenn tudd ko ci rapport gendarmerie mais photo yi am na ci dossier mais kenn wax ko ci rapport gendarmerie bi mu ni moo ma dugal kenn waxu ci photo yi kon rapport gendarmerie bi benn mbir parce que dafa mel ni rapport gendarmerie dafa maa accusé ñaar benn mbir la accusé ki maag voilà war naa leen boobu leer ah waxul ci photo yi mais loolu du problème sax mu wax ci loolu xam nga amul trop trop li am solo mooy photo yi lan la ci wax dane photo yi Serigne Bassirou Gueye mi ngi ko génnee ci internet dugal ko directement ci dossier bi te gis ngeen ci conférence bi léeg-léeg gis Serigne Bassirou mosul waxanteeg moom lu dul ci ay média la gise Serigne Bassirou waaye léegi kon nooy xamee ni man ci internet laa ko jële dugal ko ci directement bu fekkee dañ la ko nettali xanaa prudence ak wóoral ak dëggu dina may nga ni loolu kat dama ko yaakaar waaye daal dafa jël ay photo dugal ko directement te yow xam loo foo photo jóge noo mën a xamee ni fu Serigne Bassirou jëlee photo te mosoo gis Serigne Bassirou mën a toog ak moom li ma wax sax xam naa yéen a gën a xam waxu Ousmane Sonko mais loolu sax ba léegi amul problème waaye bëggoon naa leen wax sax loolu il faut ma leeraleen ko photo yooyu muy wax. am na lettre boo xam numéro 108 la barre 2 barre SR du 8 février 2021 boo xam ne moom la ma commandant section recherche yónnee boole ci photo yi bi mu maa ko ko vérifié loo mu vérifié ko ba pare yónnee ma ko ci numéro bii ma la wax pour lettre numéro 108 2 bu SR section de recherche maanaam du 8 février 2001 daal ci bind pour jonction au PV numéro 108 maanaam PV bi ñu doon def ci Ousmane Sonko enquête Ousmane Sonko ak Adji Sarr PV boobu daf ma koy yónnee le huit mu yónnee ma bii ne ma naa ko ci def ma boole leen le neuf jox ko juge d'instruction kon li naan dañu koo jëlee ci internet loolu amul sens mais c'est pas grave loolu c'est pas problème mais li ci grave mooy daf ni PV boobu lu tax mu dugal ko ci lu tax mu dugal ci photo yi nee na pour dugal Ndeye Khady Ndiaye nee na boobu dama bëgg a charger Ndeye Khady Ndiaye de proxénétisme ñu ne ko le proxénétisme mooy proxénétisme mooy kuy jaay jigéen ok. nee na dama jël photo yi dugal ko ci biir pour taxal Ndeye Khady jaay bu ko defee bu Ndeye Khady Ndiaye taxee ma man ko atteindre moom du loolu la wax man waxu Ousmane Sonko laay wax de du ma wax du ma inventé dara li ma yor kenn xamul lan la ci lu ma mën a lu ma mën a lu mën a setal mbir yi mais damay jël waxi Ousmane Sonko rek nee na man maa jël photo yi dugal ko pour taxal Ndeye Khady Ndiaye proxénétisme mais loolu loolu loolu yërëmtalu na Ousmane Sonko mi ngi ci procédure bi depuis deux ans daanaka. moom Ndeye Khady Ndiaye ñoo bokk parce que viol lañ ko toppee moom ak menace de mort toppee Ndeye Khady Ndiaye complicité de viol ak yeneen au lieu mu xool procédure am mu topp Serigne Bassirou Serigne Bassirou Serigne Bassirou sañu ba xamul lu nekk ci procédure bi maa ngi leen di wax loo xam ne xëy na di ngeen ko di du xëy na boo ngeen ko xamul aussi en tout war na leen mën a bett mooy procédure bi mu commencé ca section de recherche ba mu ñëw ci procureur procureur saisir juge d'instruction juge d'instruction woo leen ñoom inculpé leen enquête ba mu jeex mu yóbbu ni nañ leen àtte proxénétisme amu ci hmm? proxénétisme bi mu ne dama dugal photo yi pour charger Ndeye Khady Ndiaye pour proxénétisme daa amul sax ci dossier bi proxénétisme mooy koo xam ne dafay jaay boppam ki koy dimbali di ko wutal ay client wala di ko wut fu mu dëkk wala yooyu kooku moom la ñu woowee moom nee na Ndeye Khady Ndiaye dama koo chargé bëgg a wone ni moom day wutal euh, euh, ay ay day wutal euh, Adji Sarr ay góor ma ne nan laay chargé Ndeye Khady Ndiaye proxénétisme alors que dossier bi ba mu jeex amul proxénétisme xanaa loolu leer na nag na génne benn fu ñu bindee proxénétisme Touré dégg naa pap Alé Niang liir di capitaine Touré wax na ni xaw ma lan dañu bëggoon topp Ndeye Khady Ndiaye proxénétisme capitaine Touré bi doon def enquête bi sax bindul proxénétisme ci dossier ci euh, kii bi ci ci ci inculpation yi mu visé maanaam euh, li mu tuumaal ñooñu bindu ci benn infraction bu nuru proxénétisme kon xam nga loolu leer proxénétisme amul ci dossier bi dossier bi bi mu ñëw man maay procureur man maa jël dossier jël sama réquisitoire introductif ah le 9 février incitation Ndeye Khady Ndiaye ñi ngi ko toppee incitation à la débauche diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs ak complicité de viol Ousmane Sonko ñu toppee ko viol ak menace de mort ana proxénétisme juge bi tam bi mu koy inculpé loolu la ko inculpé waxul proxénétisme juge bi bi mu koy renvoyé loolu la ko renvoyé amul proxénétisme mu ne man damaa singale Ndeye Khady Ndiaye pour proxénétisme te yow nga war a xool sa dossier yow nga war a dem ba à nga nekk deux ans ci procédure ñu renvoyé procédure yow xamuloo lu nekk ci procédure nga jàpp ni li lañ toppee kéeg loolu c'est dangereux pour moom moo tax ma ne kii affaire yërmande nag dafa jot loolu triste na am na leneen lu ko gën a garaaw am na lu ko gën a triste mooy daf ne bi ma toppee lu tax ma bëgg a topp Ndeye Khady Ndiaye pour proxénétisme mooy nee na moom Ousmane Sonko laa gën a bëgg a dugal ah loolu nag moo gën a téye garaaw quand même Ndeye Khady Ndiaye nee dama ko topp dama ko bëgg chargé pour proxénétisme wax naa leen ne amul mais nee na loolu li ma si jublu mooy pour ma taxal ko moom Ousmane Sonko waaw loolu ku am na xel ku am na xel di wax loolu xam nga mooy lan kuy njaay jigéen maanaam nee na man dama ne Ndeye Khady Ndiaye. mooy dimbali aji saar muy jaay boppam maanaam kuy jaay ñiy jaay seen bopp lay dimbali mooy proxéné du dëgg waaw su ndey Xadi Njaay dee dimbali aji saar muy jaay boppam kon aji saar day jaay boppam kon aji dañ koy topp su fekkoon loolu dëgg la kon ki koy dimbali muy ndey Xadi Njaay dañ koy topp waaye nee na Ousmane Sonko kon bi nga xam ne moom bu fekkee jafe jàppe boppam client client la kon dañ koy bàyyi kon soo toppee ndey Xadi Njaay proxénétisme kon yow Ousmane Sonko rëcc na mais loolu bu fekkente ne Ousmane Sonko ak li mu am ci xel ni ñi xam ko nga xam ay ñeenti xel la monté su demee ba mënul comprendre ni su dee proxénétisme rek moom rëcc na mu chargé ma ci loolu ni man wala dama ko bëggoon a tooñ lu ma bëgg koo parce que dama ne kee la kon moom laa bëgg a chargé su ma nee kee proxénète la mooy moom nee naa na waaye kon ma cuune lool nee na dama ko bëgg a singli moom Ousmane ba pare may wax loo xam ne bu ma ko waxee moom jëm na ci procédure dem ñu bi këram donte li muy wax dara amu ci singale wu ma ko ma leen kon loolu laa doon wax bëggoon Sénégal xam ko kon loolu mu wax ci photo yi kon gis ngeen di France ay photo procureur amul dara lu muy def ay photo an ay photo ay jigéen yu xawma lan et cetera loolu ak li procureur am ci pouvoir amul dara lu muy def lu jël ay photo di dugal photo yoo xam ne boo ko dugalee soo nee Ndeye Khady Ndiaye proxénète la rek yow Ousmane Sonko la jël kon foofu li ma lay wax ci lu gàtt mooy photo yu jotewul dara dara dara ak Ousmane yu ñaaw Ousmane Sonko dañ ko toppee viol waa photo lu mën naa wane dara ci viol déedéet bu comme photo Adji Sarr newu ca kay kon photo mënul wane dara ci viol photo mën naa wone mën de mort maanaam ne dañ koo dafa doon tiital ba ko rey loolu ay photo foto yu jigéen yu yu sol ay sol yu doy waar loolu mooy firndeel loolu kon xam ne kon loolu mooy loolu Ousmane Sonko yoonam newul ci photo yi photo yi amul benn lu mu koy yokkal wala lu mu koy wàññi photo yi sax Ndeye Khady Ndiaye ñett lañ ko topp complicité de viol photo yi jariñu ci dara moom Ndeye Khady Ndiaye incitation à la bi ñu ko toppee maanaam koo xam ne da ngay xeer ay xale ci ñu yàqu foto yi jariñu ci dara diffusion d'image contraire aux bonnes mœurs maanaam day génn ay foto yu ñàkki teggin loolu moo tax photo yu jóg benn boobu la te loolu yoonu Ousmane Sonko nekku gis ngeen ni photo yi yoonu Ousmane Sonko nekku ci munu koo takkal lu toll ni tarfatal ay ni ba mu koy jël di ko ci kon li ngay xam mooy Ousmane daal moo dëkk woon rek toog bëgg maa taxal benn mu bëgg setal boppam taxal nañu ñaar mu ànd ak ñoo xam ni xam nañ ni am na problème ñu profité ci moom di ko manipuler man nag bu njëkk bi laa gëm dama gëm ni moom mooy manipuler waaye teewul nag comme man ko gëm dama gëm yàlla bu wax lu ma wóor mën naa am parce que léeg-léeg wax wax yoo xam ni wax dëgg yàlla du waxu kilifa du wax ko am xel. kon nag loolu la kon su fekkente ni Ndeye Khady Ndiaye dañ ko wax affaire donc dugaluma ma woon jéemumaa dugal Ousmane Sonko am na loo xam ne aussi nag seetlu naa ko ci mbir mi xaw ma remarqué ngeen ne mooy Ousmane Sonko saa bu may attaqué day wéet day wéet ci mbir mi am nay avocat ba may porter plainte Cour suprême moo signé affaire bi même su fekkee ay avocats par des règles et cetera wuñ ko. boo liiree la mu bind ak la mu ni ko expliqué ci seen média yi xam ngeen kii boroom xam-xam assisté wu te pourtant nag ay kàngam moo ko bokk na ci yenn ci avocam bi du ñëpp waaye ci ay avocat am na ci ñoo xam ne ci ñi ëpp xam-xam ci barula la lañ bokk ci ëpp xam-xam ci Sénégal ñu ngi ci moom kon su fekkonte ne loolu du waxu ku daanu ci saret muy dem cour suprême di nga gis avocat yi bind ci lu leer di gis avocat am na benn avocat boo xam dem na ci presse dama attaqué kenn rek la de loolu kenn rek la xam naa moom day wut tur ci dafa amagul ko jox tur day wut tur ci Ousmane Sonko attaqué na ma ci bi kooku su xamoon ne lii Ousmane doo nga dem baax na kon moo koy jàppale ci jàppale ko ci def mais boo gisee Ousmane Sonko li mu wax li mu bind ak li mu ci siiwal da xam ni kon Ousmane Sonko wéet na trop bi mu bind loolu wéet na tam bi mu ne affaire bi nul na. ni sëñ Bass dafa salfaañe affaire dafa salfaañe wéet na ci parce que benn avocat boobu ak xëy na keneen koo xam ni militant la en même temps avocat nga xam ni c'est normal quoi que mu défendre noonu c'est des positions ko jàppale ci avocat ni ko que ñi xam nañ ma nekk ci wetam ñi ci ëpp xam nañ ma am na ay relation yu baax naw nañ ma naw naa la bi ñu ma nawee of nag bi am na ki ay ay ay message yoo su ma la ko sax da ngay daw na pas possible ndax cofeel ak yooyu loolu la ñu séq kon ñooñu bu te ñooñu ay avocat dëgg lañ maanaam nekkul ay sëriñ Bassirou magistral nañ ko ruusam yooyu de ñu xamoon ni lii sëriñ Bass la ko solo ñoom ñoo la koy njëkk a wax ne lii ay sal waaye boo ko liiree di nga xam ni lii bàyyi ko Ousmane Sonko rek mu lijjante ko au plan politique comme ni ko kenn doon waxee démb ni ni dossier bi dañ ko dañ nga ko xam ne ko lijjanti ko au plan politique moo di des je ne mais kon xam nga loolu wéetaay moo tax séjour de chambre d' accusation ku koy séjour de chambre d' accusation naan ko ay yooyu kon loolu moom nga xam ne dafa wéetaay li mu ne dama koo bëgg a arrêté moom boobu ci la gën a wéet parce que doo dégg sax ni ñoo dafa ko bëggoon a arrêté moom loolu avocat ñi ko sax wax donc procureur damaa bëgg arrêté mais arrêté wu loolu du xel kon wéetaayu Ousmane Sonko moo nekk loolu ci procès verbal bi sama diggante ak moom moo tax lu ne mi ñu koy wax fi may jeexal mooy nit doo tooñ tooñ baaxul. man 24 ans laa liggéey magistrature ku nekk magistrat wala nga nekk ci kon wala nga xam li fay xaw respecté na dossier bi bi muy am boobu def naa 8 ans daanaka parquet Dakar danaa toog parquet Dakar 8 ans nga xam ne maa ngi waaj a dem ma nekk di salvage ay procédure lan lay jëriñ mais moom gëmu ko da leen communiqué waa tey nag dafa jot ñi nga xam ne ñu séré lañ ñoo xam dañoo mer rek jàpp ni procureur li mu def vraiment jaaduwul ci procureur ñu dal sama kaw jot na lii ngeen déglu jël ko dégluwaat ko comparé kook li Ousmane ko di wax comparé kook li Pape Alé liir ci PV bi ngeen gën bu boobaa dootu leen wax bu defee ngeen jëm ci leneen ñu dem ci leneen donc loolu laa bëggoon a tey nag ñëw naa départ nee naa leen du ma xuloo duma ma chargé xuloowu ma mais tey laa koy mën de tey laa njëkk a wax ci PV bi publiquement man ay dossier sax am na dossier yoo xam ne dama ci daan génn ba may nekk tribunal di ci wax bi dossier bi nekk dossier bi même bi mu ñëwee tribunal man defuma ci point de presse defuma ci conférence de presse ndax dañuy jàpp ni comme affaire privée la nañ ko gérer waxuma ci kenn déggu moom wax ci depuis un an deux ans Ousmane Sonko mi ngi may saaga moog ñi ma àndal wax bu ñaaw bu ne teg na ko ci man teg na ko ci samay mbokk wala teg lu na ko ci samay mbokk ñëw naa mënoon naa riposter mënoon naa wax leneen nii la ma ñëw wax ak élégance parce que lu ma fonk la mooy élégance lu may def rek damay xool ndax am na élégance waaye man 9 ans laa def parquet Dakar man procureur laa boo xam ne 9 laa def parquet Dakar dossier bii lii laa ci doon wax. su leen neexee juñu doon na borom xel dootu mën nangu di bàyyi kenn jël presse di wax suñu demaatee ci fan su ko soxlaa dinaa ñëwaat boobaa su muy ñëwaat Sénégal yëpp nangul Sénégal xamul ku fayu xamul kuy dóor ku fayu la xam procureur u 9 ans moom lañ day attaqué te tontu leeral na wasalaam maa leen gërëm leen sant dama ci def bala ngeen wax ay questions